100 kilos Pape Maron plus de technique euh, Djibril Sakho entraîneur Mbaye Diouf arbitre Mathieu Mané arbi suuf la waat na diggante Cheikh saar bu Djinda diggante Cheikh Sarr borom Djinda te mu nekk ndeysaan fi nga xam ne mooy Fatick ak ki nga xam ne ndeysaan mooy Adama Thior bu Kaolack 66 kilos poids de 66 kilos la ñuy bëre ñoom ñaar waaw waaw diggante Cheikh Sarr la ak Adama Thior diggante Cheikh ak Adama Thior waaw ndeysaan combat revanche la mais daa mel ni jàpp ngeen bu bokkul waaw tey trois appui defet la te jàpp ngeen bu bokkul waaw waaw aha combat sok la ñoom ñooy ubbi affaire bi ndeysaan waaw diggante Cheikh Sarr ak Adama Thior combat romance waaw fii la ci drapeau chef de l'État bu Kaolack ndeysaan waaw waaw waaw waaw Cheikh Sarr daanu na ndeysaan Cheikh daanu na yéexee seex daanu na ah, waaw seex daanu na ndeysaan diggante Matam ak Dakar ngeen di seen noonu Matam Dakar ngeen di seen noonu première tirage 66 kilos yéexee Matam Dakar war ngombu plaqué trois pi daan na ko ndeysaan Kaolack bari waaw waaw ah, waaw ndeysaan noonu ngeen koy gisee diggante Kassab ak Moundela diggante Kassab ak Ngor Niang avertissement Ngor Niang avertissement Kassab ak Moundela Kassab ak Moundela ak kasab kasab kasab mu ndee ngoor ñaa kasab ba ngoor ñaa Fatick Kaolack la ndeysaan waa fii lay xewee ci Jurbel drapeau chef de l'État ndeysaan waaw fii la champion yi dajee boo defee trois appuis ndeysaan daanu nga amul jàpp ngembo amul trois appuis waaw fii lay amee ci chef de fii la ñuy xoole ñi mën a dem seede yaawoo ndeysaan yeexe sama gaay yi fii lay leere combat sook la moo tax kenn du ko caxat-caxate Tony Junior bu Dakar mooy bëre ci wet ba ndeysaan kasa ba munde na ngor nya hey kasa borom na ngor nya kasa dan na ngor nya ndeysaan eh, la ci chef de l'état bu daanu événement la ngor mu daanu événement la sama gaay soosoox 86 kilos papongaan bandi papongaan waaw Fatick Kaolack la ba léegi ndeysaan Fatick Kaolack la ba léegi ndeysaan 86 kilos Fatick 1 Kaolack 1 waaw fii la ci drapeau chef de waaw waaw Soso bandi 40 ah, ah, ngeen bu bokkul aha aha ah, dafa laal ngeen bu moo laal ngeen bu bokkul bandi 40 laal ngeen bu bokkul waaye fii lay xewe ndeysaan yéexee combat Sokh yi teel na démarré surprise yaa ngi teel a bari nga xam ne mooy Pape Maroon mooy bëre ci wet bu ndeysaan mooy ndeysaan ki nga xam ne mooy luy coor numéro 2 bu mbaaw waaye ñoom ñaara daje ndeysaan kii Matam kii Dakar waaw ñoom ngeen di gis noonu sama gaay combat bi Pape Ngane la ndeysaan ak bandi 41 ke lu ma door mo Pape Maron mo Pape Maron waaw ndeysaan matam Dakar waaw waaw ndeysaan waaw noonu la demee bandi 40

dox ci diggante rajaxe ak Fambour ndaysaan Kaolack ak fatik Famara Sarr moo nekk Fatick ndaysaan Radiakhé daw na jël ko Fatick ceinture rouge ndaysaan Radiakhé bleu mooy Kaolack mu koy mu koy biij rajaxe biij na ko yegg nañ suuf plaqué lu am dara xewul dara xewut waaye combat bi neex na derbi la diggante Fatick ak Kaolack derbi la diggante Kaolack ak Fatick ndaysaan derbi la ñoom ñaar munu munu ñoo yomb ndax ñaari équipe favori la ñu boole ci match de poule yi ndeysaan ñu war fas yéene laale ci wàllu bee Dakar ma ngay compétir di Serigne Ndiaye 2 ndeysaan Dakar ak ndeysaan Ziguinchor ak Matam ndaysaan Dakar ak maatam ceinture rouge baa ngay deñ moom Serigne Ndiaye 2 bu Dakar daw na jëli Matam bañ na plaqué na booy bi bañ na sol na ko xale bi bañ na drapeau chef de l'État ndaysaan ñu ngi fii ci Diourbel ndeysaan ñu ngi fii ci Jurbel mbokk yi plaqué na fii ndeysaan Fatick ak Kaolack Fatick kawlak fee tamit arbitre bi na beneen plateau bee bi dox ci diggante Dakar ak Matam ndeysaan ñu ngi noonu maatam centre bleu dakaar rouge ndeysaan Dakar gis nañ ci entraîneur ba suñu papa Kati Diop Moustapha Gueye le tigre l'ancien tigre de Fass Serigne mooy capitaine bi ndeysaan Dakar fa la tóodi bari na ay fa nekk fàqat na ko xale bi bañ na Serigne Ndiaye koy jéem a jël Dakar jël na tànk ba daan na ko Dakar daan ndaysaan Dakar daan na waaw waaw xolal fële ndaysaan Doudou Sané sax ci entraîneur yi la bokk ndax ñoom dañoo bokk équipe bokk représenté fatik gis nga ko mu nekk mbër nekk entraîneur eh, waaye da ngay bëre xale bu garaaw ra jaxe kenn du moom drapeau bu mu dem ren daa daanu final wala mu jël ko. moom faam bu kooku mooy faam bu mu dem ren yëpp final wala mu jël ko rek. Ah, drapeau a commencé de dox ci diggante Fatick ak ak ak ak Kaolack. Fatick dafa teel a commencé surprise dañoo teel a commencé. Ngor ñaan ndeysaan daanu drapeau chef de l'État da koy doog a daanu. premier combat am premier combat mu ñàkk ko ci 76 kilos yi. waaw ki nga xam ne mooy Tony Senior tamit loolu moo ko dal 76 kilos mu ñàkk. par 76 kilos ndeysaan daanu loolu tamit ndeysaan mosu ko fi daal. ren drapeau chef de l'État kan nga jàpp ne mooy favori. non ren moom Kaolack ak Dakar ñooy favori waaw. Kaolack Dakar waaw Diourbel ren du favori moom. Diourbel ah. Fatick moo ko gën a dëgër sax. gën a dëgër waaw moo ko gën a dëgër de. waaw. am na solo. arbitre baa ngi noonu sifflé ci diggante. ndaysaan Kaolack ak Fatick. Ndaysaan Fatick ceinture rouge Kaolack bleu Ndaysaan Famboudak Fatick Radiakhé Kaolack daw na jëli ko moom ndaanaan la moom Radiakhé moom Radiakhé ndaanaan la jàppante nañ Ndaysaan jàppante nañ waa Radiakhé daaw daa mel ni la. daaw la compétir ñoom ñoo ko jëloon. mook ñoom Boy Faye la woon daaw. ak ki nga xam ne mooy Gagne Fama ndeysaan. ak ki nga xam ne mooy Mburoog Ndembe. ñoo ko jëloon daaw. ren ndeysaan Radiakhé ndeysaan dëkkam la toog. nee na di waliyaani dëkkam lay toog. am na solo. moom Radiakhé Kaolack. ndeysaan jëli nañ ko ba. Dakar arbitre bi àtte na arbitre bi àtte leen nee na ko téye ko deux avertissement pour Radiakhé entraîneur bi nee na ko contact contact ndax am nga ñaari avertissement trois avertissement da ngay ñàkk kon actuellement Fatick moo gën a nekk ci poñ que Dakar déggal que Kaolack botti na ko daan na ko daan na ko Famouda daan na Radiakhé mooy Doudou Sané ngañ seen ku ci daan yaa gagné Doudou Sané ngañ def waaw loolu 120 kilos yi ñooy des ndeysaan doo doo lañ def 120 kilos yi ku ci daan yaa gagné keneen ki toog keneen ki jàng Doudou Sané ngañ seen Doudou Sané ndax day fay wala day doliwaat loolu final waaw loolu final la dañoo kan kan moo ci gën a solo waaw Doudou Sané moo koy daan ngañ mosagul a fayu ndeysaan waa depuis raw gadu ba léegi mu ngi koy daan waa tey lay leer nee na ko xele mag na xam nga kan mooy xele bi ngaj nee na mooy caat mbokk yi arbitre bi sifflé na dox ci diggante Kaolack ak Fatick plus de cent kilos dox ci diggante Doudou Sané Ngagne Sène ndaysaan ñoom ñaar ku ci nekk am na deux kii par équipe deux kii par équipe deux Doudou Sané fàqat na ko Ngagne Sène bañ na jàppante nañ ñoom ñaar ku daan génn ndaysaan ku daan génn ñoom ñaar laa ilaaha illallah jël na bañ na arbitre bi àtte na lalla lalla lalla bi am na lu wax bi sifle waan ngañ seen Doudou Sané Kaolack Fatick ndaysaan ngañ moo la féete càmmoñ centre centre bleu Doudou Sané jël na ko mu bañ ngañ seen Doudou Sané ay <laughs> waay ku daan jël ku daan génn ku ñu daan nga perte final ba nga noonu ngañ seen Doudou Sané ñoom ñaar dégg nga ko ah waa ji nee na sànq fu ko fekk daan ko moom Doudou Sané ngañ seen na ko xale màgg na dina màggam déet fu ñuy mujj ñoom ñaar ngañ seen Doudou Sané ngañ seen Doudou Sané Ndeysaan Ngagne Sène Doudou Sané Ngagne Sène day Sané daw na jàpp ko jàppante nañ lu nar a xew Doudou Sané Ngagne Sène Kaolack Fatick Kaolack Fatick Doudou ndaysaan ngañ seen dudu saane laa la illallah ndaysaan ñoom ñaar final la ku daan jël ku daanu xar xale màgg na wala déet Mbaye Babacar jël na ko. Ngagne Sène Doudou Sané plaqué na ko Doudou Sané daan na Mbaye Mbaye Babacar Doudou Sané daan na Ngagne Sène waaw waaw eh Fatick nee daan na ko juróom benn yoon Doudou Sané nee daan na ko juróom benn yoon eh Doudou hey Doudou macha allah ndeysaan nee daan naa la juróom benn yoon ndeysaan gañ seen Doudou ngi noonu équipe ba na ñëw ndeysaan daan na gañ seen final bi ndeysaan tey compétition bi du du yomb xale la boo xamante ni doon na xale am na doole waaye bokk na ci lamb moom Doudou doomu ñoojoor doomu joof yor ndaysaan Doudou Sané ndaysaan Fatick waaw bu cérémonie bi cérémonie ouverture bi jeexee plateau bi Matam moo tasanteeg Kaffrine Matam moo tasanteeg Kaffrine Matam moom la ñu waree ceinture rouge Kaffrine ñu waree ceinture bleue bu cérémonie bi jeexee cérémonie ouverture bi donc ngeen waajal ànd ak arbitre bi na dox ci diggante Ziguinchor ak Fatick Fatick ceinture rouge Doudou Sané Ziguinchor bleu ndeysaan ña nga noonu Doudou Sané mbokk yi ñu ngi fii ci Diourbel waaye dëkk bi tàng na jër jër jër na ko jël Doudou Sané daw na jàpp ndeysaan Fatick ndeysaan ak jigéen son ñu ngi noonu ci compétition yi ba tey daw na jëli ko ñu ngi noonu ñoom ñaar di lewaatoo dox ci diggante Fatick ndeysaan ceinture rouge Ziguinchor bleu Fatick jàpp na Fatick jàpp na sànni na ko ndeysaan xale bi bañ na ndeysaan jëlaat na tànk ba Doudou Sané bañ na jël na tegal 16 waaw tegal 16 bot sànni na ko doole trois pi jàll na bàyyi ko daanu na ndeysaan nee na day rendi moom Doudou Sané nee na damay rendi daan na arbitre bi sifflé na mbokk yi Ndaysaan 22e édition drapeau chef de l'État ñu ngi fii ci jurbel Ndaysaan Dakar ak Kédougou Dakar jël na ceinture rouge Dakar jël na xar na mbot na daan nañ ko Kédougou daan na Dakar Kédougou daan sible waat na Dakar Kédougou Kédougou am na un Dakar zéro ndaysaan ñu ngi noonu ci compétition bi Dakar Kédougou Dakar Kédougou Dakar Kédougou daw na jëli ndaysaan Kédougou ak Dakar ñu ngi noonu ci compétition bi ndaysaan xale yaa ngi noonu ke dugg Dakar daw na jëli ko caxabal bañ na caxabal lu nar a xew ñëwaat nañu arbitre bi sifflé waat na mbokk yi ke dugg Dakar Kédougou Dakar jël na ko jël na ko caxabal doole Dakar bañ na Kédougou Dakar Kédougou Dakar daw na jëli song na ko jàppante nañu attention dugu Dakar Dakar ceinture rouge Kédougou bleu Kédougou Dakar Kédougou Dakar Dakar Dakar jàpp na añ na Kédougou forcé na Dakar Dakar Kédougou Dakar Dakar wër na ko ndombo Dakar wër na ko ndombo trois pi daan Dakar daan Dakar daan arbitre bi waaj a sifflé ndaysaan arbitre sifflé na dox ci diggante Tamba ndaysaan Kédougou ak dakaar ndaysaan Kédougou Dakar Tony Dakar ndank ndaysaan ndànk Tony sa premier combat ñàkk ci compétition bi pour que nga mën a góorgóorlu faaw nga wane sa bopp caxabal mbot yegg nañ suuf yegg nañ suuf yegg nañ suuf yegg nañ suuf Dakar wër na ko ndombo Dakar wër na ko ndombo wër na ko xale bi bañ na Dakar wër na ndombo laa ilaha illallah wër na ko ndombo njool ma bañ na lu xew lu xew arbitre nee na dara amul ar bi nee na dara amul arbi nee na dara amul arbi nee na dara amul arbi nee na dara amul Tony ndànk Dakar ndaysaan ak Kédougou ndaysaan Dakar centre rouge Kédougou centre bleu Dakar Kédougou plaqué nañu ko la ilaha illallah oh Dakar daan na Dakar daan na Dakar daan na na ba tey daw na jëli ko ndeysaan ndeysaan xale yi daa mel ni ñu ngi ci combat bi Ibrahima Sarr Radiakhé yi ngi ci combat yi ba léegi ndeysaan combat daa mel ni métti combat bi combat Sokone la ndeysaan. instant yi par équipe kan moo dominé. instant bii lañ am ndeysaan. 2-1 waaw. adversaire ndeysaan Ibrahima Sarr. waaye yéen ko war a ndeysaan. waaw mu ngi noonu sama gaay yi. fii lay xewee ci Diourbel. 100 kilos Ibrahima Sarr. ñu ngi noonu ci compétition bi ñu ngi ci compétition bi ndeysaan làmb gi jox nañ moom Radiakhé trois victoires pour sion bi ngeen gis ci digg géew bi dafa dox ci diggante dakaar ak Kédougou sànq xale bi di Tony Junior nekk dakaar dafa bëre ak benn xale bu nekk Kédougou mbokk bi ñu bëree ñoom ñaar si am action bi continuer Tony Junior daan waa Kabe nga xamante ne ñoo jóge Kédougou dugal recours recours ba génn ñu ne Tony Junior action bi njëkk moom Tony Junior dafa daanu waral père Moustapha Gueye mi nga xamante ni mooy entraîneur écurie bu Dakar wala région de Dakar moo ñëw ci table bi toog taxaw di contexté que ni action bu njëkk bi Tony Junior daanuwul mbokk yi kon looloo taxaat ñuy xaar ci digg géew bi kon dañuy def arbitre bi siflé waat na daw la jàppante mbokk yi damay dama sonn mbokk yi njoor ñaax saan kawlaak daw na jëli Ziguinchor fàqat na ma ngi koy bëri bàññee di ko yóbbu gauche droite moom góor ñaax lu mu nar fàqat na ko bañ na ñaari xale yi ku nekk am na ñaari avertissement bëre ngoor ñaax ndaanaan la boo génnee saako yi ñàkk ku ci génn saako yi pert moytu leen saako yi fekkiwul kenn ku ko fekk ji yaa ko yëg jeex na wala déet jeex na ngoor ñaax am na ndam waaw waaw ngoor ñaax am na ndam ngoor ñaax ndam na ndam waaw waaw Kaolack am na ndam ci kaw yaa ngi koy fàqat ña ngay ñoom ñaar <laughs> ndeysaan ñoom ñaar Baye Paul Ablaye Ndiaye du yomb ñoom ñaar plus de cent kilos la ñuy bëree ndaysaan Ablaye Ndiaye Baye Paul ndaysaan ñoom ñaar jàppante nañ daan na ko daan na ko Ablaye Ndiaye daan na ko Ablaye Ndiaye daan na ko xam nga bu ñu xasee ba drapeau chef de l'état rek mooy neex na ndax xam lu état de financé moom kooku moom macha allah rek nga ci teg waaw chaque année nag dina am loo xam ne moo ciy nekk luy rax lu bees mooy open waaw open mun nga ma ko leeral pour ku xamul open lan mooy open ak open nu muy demee jiili open comme raw gàtt ni mu mel rek la li gën a gàtt boo expliqué nit ñi day gën a compliqué gën a metti li ñaan comme fasu course rek njëkkante la ku daan rek avancé ku daan dem ñibbi maam lees daanu xaar daanu ñibbi maa koy jaajëfal moom maam lees mbokk yi jóge ci compétition ba tey diggante Kaffrine ak Dakar Dakar ceinture rouge Kaffrine bleu jël na ko jàppante nañ eh jàppante nañ Dakar Kaffrine ñoom ñaar a ngi noonu Dakar Kaffrine añ na ko trois appuis am na bii moom mënul rëccaat moom bii moom mënul rëccaat moom booy bi daan na ko ñaari yoon e daan na ko ñaari yoon waaye e eh, mbëru Dakar bi waaye Dakar xoolaat ñi nga xamante ni ñoo koy kii waaw ndaysaan mu mel ni loo xamante ni xale yi chaque fois dañuy wane waat seen bopp ci làmb waaw plateau bee commencé waat na Dakar ak Kaffrine arbitre bi sifflé na Dakar ceinture rouge moo la wan ginnaaw Kaffrine ceinture bleue moom ngeen jàkkaar lool xale yaa ngi noonu ci compétition bi daanaka mun naa ne poule bi benn équipe a ciy génn ndaysaan ta xale yaa ngi compétir ba tey ñoom ñaar ku ci nekk am nga ñaari victoire muy dakaar muy kafrin ñu fas yéene daje tembo tembo loolu la wolof naan tembo ndaysaan dina metti laa ilaha illallah laa ilaha illallah laa ilaha illallah waaye plateau a rajaxe daan na ndaysaan rajaxe daan na la kromosel bu bajaana ndaysaan ña nga noonu ndeysaan xale yaa ngi noonu ndeysaan nga noonu plateau A baa ngi noonu waaye plateau B baa tamit aussi plateau B ñu ngi fa am région de Kaffrine ak Dakar daan na ko daan na xam nga ni ndakaaru neex na waaw waaw xale ba daan na de eh, day ndaysaan ndakaaru njaay jal jóob sangamaare bi xale ba daan na Dakar Ceinture Rouge moo leen wan ginnaaw Kaffrine moom ngeen jàkkaar lool ndaysaan yaakaar naa quatre-vingt-cinq kilos bi la ñu toll ñu ngi noonu ñoom ñaar daw na jëli ko waa lii la la waa lii la eh, ñëwul Tony Junior trois combats trois défaites. arbitre bi sifflé waat na plateau B Kaffrine ak Dakar 2-1 Dakar 2 Kaffrine 1 bu Kaffrine daane dañuy témboo. bu Dakar daane wuro dem Kong wax mag dem dañ taali dagg war mbaam lu waay doon jaay final ba lay lamb ndaysaan su ko defee nga dem final par équipe suba nga def compétition par individuel ndaysaan mbokk yi ña nga noonu jàppante nañ Dakar jàpp na daan na ko daan na ko daan na daan na Kaffrine daa jàpp ci ngemb li ngemb amul avertissement wax nga dëgg jàpp ci ngemb amul mbëru dakaar bi daa jàpp ngemb mbëru kafrin bi hee eh, mais après plus de cent vingt kilos moo garaaw plus de cent kilos <laughs> dox ci diggante Serigne Ndiaye 2 bu faas ak fils de Batlen Siki bu xam sa cosaan ndaysaan Dakar ak kafrin daan na ko daan na ko 2-2 deux deux deux deux ngi waaj a siffle mbokk yi final baa ngi noonu. Ndeysaan ñoom ñaari équipe ku nekk def na 2-2 Kaffrine Dakar ñaari capitaine yi Serigne Ndiaye 2 wala équipe bu Dakar Fils de Batlen capitaine équipe bu mbokk yi arbitre bi siffle ñoom ñaar ñu ngi noonu plus de 100 kilos daw na jëli ko Fils de Batlen Serigne Ndiaye Serigne Ndiaye jël na ko daan na ko Serigne Ndiaye daan na Fils de Batlen nee na ko man la nee na ko man moom Serigne Ndiaye de ndaysaan yëkkati na ko yëkkati na ko ndaysaan ñaari sportif lañ ñaari sportif lañu équipe bu Dakar ndaysaan qualifié na daan na wala déet daan na ndaysaan Dakar daan na Louga xale ba yëngal na la ilaha illallah eh Dakar yëngu na Dakar a ngay yëngu kekegeen waaw waaw la ilaha illallah arbitre bi sifla waat na deuxième combat Dakar ak Louga dakaar centre bleu Louga rouge. Ndakaaru Ndiaye Jal Diop am na ndam léegi ci kaw Louga. Louga fàqat na Dakar bañ na. Ndaysaan Dakar Louga. Dakar Louga. Dakar Louga. Dakar Louga. Ndaysaan ñu ngi noonu. Dakar Louga combat bi du mën a yomb. ndaysaan ñaari équipe la yoo xamante ne ku nekk mën naa wane boppam du yomb ndaysaan du mën a yomb ndaysaan du mën a yomb Dakar Louga Dakar Louga ndaysaan du mën a yomb Dakar Louga fàqat na ko Dakar fàqat na wala Louga fàqat na Dakar mu bañ ndaysaan du yomb lu nar a xew Dakar Louga fàqataan na ko fàqat na ko lu am dara xewul arbitre bi nee na kaay leen bëre ndaysaan arbitre bi nee na kaay leen bëre arbitre bi nee na leen du yomb leen ndeysaan Dakar Louga ndeysaan Dakar Louga arbitre bi sifflé na avertissement pour Louga arbitre bi sifflé waat nee leen bëre leen bëre leen fàqan na ko Dakar rëpp na benn oom eh, tey final bi du yomb beneen demi final bi dox ci diggante Fatick capitaine bi di Doudou Sané Diourbel capitaine ba di Boy fay ñu fas yéene laale dina garaaw dina metti dina yàgg dana mel ne ba jaaye mbaam la na nopp ya dem wër na ko ndombo Dakar wër na ndombo Dakar wër na ndombo daan na Dakar daan na 2 ak Louga Dakar Louga 2-0 Dakar Louga waaye ñu ngi koy encouragé ñëpp a koy tàcc ndax daa def trois combats trois défaites moom Tony te kenn xamu ko loolu ci wàllum làmb muy dem entraîneur bi di ko encouragé capitaine bi Serigne Ndiaye di ko encouragé waaye Tony làmb gi làmb garaaw tàkkusaan bu ne am na ko moom Tony Junior tey bu ñëwee ci stade bi xàmmeewuñu ko ak làmb xàmmeewuñu ko mooy wane ni làmb beneen affaire la daa mel ni adversaire am ñëwut. ndaysaan daa mel ni adversaire ba ñëwul quatre-vingt-six kilos ndaysaan amuñu ko Louga amul quatre-vingt-six kilos Dakar dem na final am na trois victoires Louga Dakar am na trois combats trois victoires arbitre bi sifflé na quatrième combat baa noonu dox ci diggante Dakar Louga loolu moom si moom Dakar am na waaye bi sifflé na. na. Dakar Louga mbokk yi ñu ngi ci combat bi. gannaaw ba Thiès ñàkkee. Dakar Louga jàppante nañ laay la la daan na. Dakar daan na liw coor. de Dakar abattu Louga loo. man damaa génn de nekkuma Dakar. déedéet. ayca arbitre bi mu ngi sifflé. dox ci diggante Dakar ak ndeysaan Louga loo Serigne Ndiaye 2 ndeysaan Baye Paul numéro 2 Louga Baye Paul numéro 2 ceinture rouge. Dakar centre bleu teq na ko ak ñuul Baye Paul boo ko gisee moo xees Serigne Ndiaye Baye Paul daw tànk ba Serigne Ndiaye lu mu bëgg sol na ko Baye Paul Serigne Ndiaye de Dakar Louga fu muy mujj Dakar Louga Serigne Ndiaye Dakar jiital tànk ndijoor daw na ko bañ na Baye Paul bañ na daw na jëli ko Serigne Ndiaye Baye Peul Serigne Ndiaye Baye ñu fii ci drapeau chef de l'État 22 demi-finale Serigne Ndiaye ak Baye Peul numéro 2 ñaari numéro 2 yi kan doon o ñaari numéro 2 yi kan doon numéro o daw na jëli ko bañ na Baye Peul bañ na faqat ko ndomba Baye Peul bañ na Serigne Ndiaye lu mu bëgg doon na ko doon na ko ci suuf oh! Serigne Ndiaye Deux Fass doole nee na couronne bi la soxla ah kon fii daa ma yaakaar drapeau chef de l'État fi ne Doudou Sané nee na ko ñëw na Doudou Sané nee na Serigne Ndiaye ñëw na nee na ko fii maa ko moom Doudou Sané Serigne Ndiaye 2 Doudou Sané Boy Faye Boy Faye Serigne Ndiaye Serigne Ndiaye Boy Faye waaye lamb gi compétition baa ngi noonu ndeysaan bi sifflé na dox ci diggante Fatick ak Diourbel ña nga jàppante dellu si waat nañ taa na fàqat am na ñaari capitaine ku nekk ngi toog ci nen Boy fay Doudou Sané ñoom ñaari capitaine ku ci nekk bi mooy sa premier combat ci compétition bi mbot am na ñaari xale yi duñu may dara ndeysaan lu leen di tàqale lu leen di tàqale dañoo tolloo doole dañoo tolloo gabarit dañoo tolloo poids macha allah ñoom ñaar ñu ngi noonu ndeysaan xolal Doudou Sané ma nga na yegg Boy Faye noonu daw na plaqué bañ na ñoom ñaar ku ci nekk boo sañoon tey sa mbër daan compétition bi ubbeeku ci yow boo amee trois victoire génn nga boo amee trois défaites ñàkk nga par équipe bi équipe bu Dakar dem na final ndaysaan xale yaa ngi noonu xale yaa ngi noonu ndeysaan ña ngay wane seen bopp daan na wala déet daa déet ña action bi xale yaa ngay bëree ndànk ndeysaan ndànk ndànk ndeysaan ndànk ndànk xale yaa ngi noonu ci compétition bi ndeysaan ñu ngi noonu ndeysaan ñu ngi noonu équipe bu Dakar bi dem nañ ndeysaan qualifié nañ final ci kaw jël na ko jël na ko dara amul dara amul xale yi ñoo raw konkor ndax wow entraîneur ba daa tiit jug na dugg ci seize ko su toogal de avertissement pour Diourbel bëreel soo bëree da daanu soo bëreewul da ngay daanu te nga bëre balaa ngay daanu bëree ndax boo amee troisième avertissement da ngay ñàkk Diourbel attaqué bëree temps bi bu jeexee nga ñàkk Diourbel bëreel actuellement bëree rek moo war bëreel entraîneur Fatick bi nee na ko teel combat bi da koy daan wala déet da daan trois pi trois daan na ko wala daan na daan na daan na daan na ko daan na ko Fatick daan na Diourbel baax na. garaan lu xew. garaan lu xew chef lu xew. ah non non ñii moomuñu lamb ji. moomuñu lamb ji ñu commencé ba léegi ils sont en train de faire des incartations sur euh, sur la table technique c'est pas normal il faut un minimum de respect. Ah. lan moo léegi lan lan mooy solution. comprendre ma sax mais nit ki da ngay bàyyi mu def liggéey noo waree booy def réclamation nga def réclamation booy bind réserve mais doo ñëw table yi nii c'est pas responsable. te lamb ji ah ay ndeysaan ndeysaan kilifa gi sama tucal la ne du son président waaw waaw bismillah père ayca ñëwal am na loo xam ne duñ ko nangu da am loo xam ne duñ ko nangu Abou Assef moo compétit 86 kilos pour Diourbel mu dem ba dernier moment am blessure ñu indi euh, benn góor benn booy boo xam ne il est de Marlooj pour mu remplacer ko doo am loo xam ne du yoon duñ ko nangu. Sitor moo ñëw Sitor moo ñëw ne booy bi qualifié wul ba ñu éliminé ko ñu ñëwaat bu booy bi bër ndax lan booy bi qualifié wul. qualifié wul deful compétition Abou Assef moo def compétition deful sélection Abou Assef moo def sélection waaw. jaajëf. dox ci demi-finale bi diggante Fatick ak. Diourbel daw na jëli ko Fatick Diourbel Diourbel ceinture rouge Fatick ceinture bleu jàppante wañaar wëñ wéela takk xalab sànni nee na ko kaay waay bandi karata fu de waaw waaw ndeysaan ndeysaan Mandi 40 daw nañ jël ko jël nañ ko daan na daan na ko wala déet lu xew eh daan na ko de eh daan na ko de première action bi sit am na wala déet eh eh eh Diourbel Fatick Diourbel Fatick Diourbel Fatick Diourbel Fatick arbitre bi atte na arbitre bi atte na arbitre bi am te na action bu njëkk ba sit amul ah sama gars yi arbitre bi sifflé waat na nañ leen dem xool Dakar ak Fatick ndaysaan Fatick ceinture rouge ceinture bleu Fatick Diourbel ceinture rouge ñoom ñaar a ngi noonu coow nar naa am ci demi-finale bi il est ndaysaan vingt heures dix neuf minutes fii ci stade bu Diourbel kàggu seen stade bu nu mu tudd Elimanel sama xarit ba kenn du moom ndaysaan jàppante nañ faqan daan na ko bandi quarante ans Fatick Diourbel un oh. ndaysaan ay ca arbitre bi sifflé na Diourbel jaxabal am na Diourbel Fatick Diourbel ceinture rouge Fatick bleu Diourbel Fatick mbot daan na daan na dem na final Fatick dem na finaal ci kaw Diourbel Fatick dem na final ci kaw Diourbel Diourbel éliminé Diourbel éliminé Diourbel éliminé Diourbel éliminé arbitre bi sifflé na mbokk yi ndaysaan ñaari capitaine yee ngi noonu plus de cent kilos dox ci diggante Boy Faye ak Doudou Sané Diourbel Boy Faye Doudou Sané Fatick arbitre bi laaj na ay sixième demi-finale drapeau chef de l'État Diourbel éliminé nañu ko Fatick moo éliminé ñu ngi noonu ci plus de cent kilos yi dox ci diggante Boy fay ak Doudou Sané dañoo nar a bëre Doudou Sané fàqan na ko Boy bañ wuy si ñoom ñaar doole doxul jàmm wara déet Boy Faye Doudou Sané Doudou Sané jàpp na bopp bi Boy Faye Doudou Sané avertissement disqualifié disqualifié disqualifié ndaysaan nee na dañuy reyante ndaysaan Doudou Sané Boy Faye Doudou Sané nee na dama am doole nee na dama am doole nee na fit bi day maas Doudou Sané ma nga noonu ndeysaan mbokk yi mbokk yi ñu leen di jaajëfal bu baax vingt deuxième édition drapeau chef de l'état fii ci stade Ilimanel Fall bu jurubel équipe bi nga xamante ni moo ko organisé woon wala moo ko jëloon daaw fële ca Kaolack muy euh, Fatick muy muy Diourbel ñàkk na ki ko éliminé moy Fatick vraiment mu nekk loo xamante ni moom moo ko organiser ci dëkkam ñàkk ko par équipe gis nañ équipe bu mel ni Fatick ñëw na wanewaat boppam ci drapeau chef de l'État ñëw na ngir wane waat boppam ci lu bare bare ci làmb waaye gis nañ favori bi wane na boppam muy équipe bu Dakar bi macha allah mais gis nañ ku mel ni Tony Junior mbokk yi trois compétitions yëpp quatre combats la ci benn bi dafa dis dañoo disqualifié adversaire am ndax équipe bii di euh, Louga amul plus de quatre-vingt-cinq kilos wala quatre-vingt-cinq kilos bi amuñu ko ñu éliminé équipe boobu mais Tony Junior am na trois combats yoo xamante ni daf ko ñàkk lal la drapeau chef de l'état bii passé fële ca Kaolack gisuñu Tony Junior drapeau chef de l'état tey ouverture bi gisuñu Tony Junior Tony lal la est-ce que nii nga doon demee ci euh, qualification yi lan la waaye ñu ngi lay ñaanal bu dee bu dee du jàmm yàlla na doon jàmm ba ñu xam Tony Junior bi nga xamante ni séntu woon nañ ko ci làmb mbokk yi première édition bi dañ leen di jox dig daje ba suba incha allahu rabbi ci compétition par individuel bi mbokk su ko defee lépp loo xamante ne xew na ñu dégtal leen ko ci wasaare làmb doo lay jën ndox doo woykat public waaye doo lay wasaare làmb yéen la suñu mbokk internet yi